yaayi Modou Lo yaayi Modou Lo ngi noonu di dugg yaayi Modou Lo ngi noonu di dugg ci oto bi yaayi Modou Lo ngi noonu di dugg yaayi Modou Lo ngi noonu yaayi Modou Lo ngi noonu di dugg yaayi Modou Lo ngi noonu

say làmb te tali bari na. bu mu bu mu soxlaa waaj. waaw ñu doon di génn say làmb te tali bari na. tegtal yi bari na saraawa yi noonu saraawa yi noonu saraawa yi noonu daal gaa yaa ngi mel ni ñi am na ñuy waaj a génn tey moom ñu ngi ci préparation mystique noonu tey làmb maa ngi noonu di duggaat noonu

fer blanc la dese Satou Ba tey fer blanc la def Thank you. Saatu baa ngi noonu mi ngi ànd ak ay mara mi ngi ànd ak ay mara classe gi nag daa mel ni tey bari na classe gi classe gi daa mel ni bari na yaay sa say classe la bokk mi ngeen gis

saa saa tey daa mel ni ceeb da cee dugg de daa làmb tey de mbay. Gora Sock a ngi noonu di dem. Sa Touba ngi noonu ay saak la xasaay bi ay vert blanc la maye mais sa mi daa mel ni Sa Touba daa mel ni nekku fi tey saa wa ngi noonu vert la maye tey cey lam talfa wa ngi da ngay wax ak nijaay ji góor a sog moom Talfa ay làmb ñu wax nijaayam góor a sog moo ne ci oto bi moom Papis ñu wax moom mais tey daal lu ma ci xamut xamut glace gi bari na tey ma ci xamul daal tey glace gi bari na kay de wala saa saa reena yooyu tax bopp ma coow li saa Talfa wa ngi noonu di wax Papis Gamer bi man saa la ñu doon waaw am may bàyyi noonu. uy ma doo ko uy ma doo ko nangu pare rek Amin. bu gaynde Talfa a ngi wax ak nijaay ji góor a soog gamer bi Talfa a ngi noonu di wax ak nijaay ji gamer maa ngi ñëw galo mais géwér bi mais tal mbaga mbaga géwér bi waa géwér baa ngi tal saa

Dona mu tal som, dona mu tal som ka. Dona mu tal som ka. Tak sawa ngi nonu. Sama sama la. Sama sama la. Ah, jël ñu gëm ko. Mais tey combat bi ñu gëm ko. Mais tey taw tal pokola bu dee dëgg la eh. waaw loolu la lekk faraabi mais tal mbaxalu mbaare bi la ma nga doon xoolee dafa bul tontu bul wax wala demee nag wala demee nag wax kenn wax kenn wax kenn wax kenn mais tal tal tey kenn doon laaj sa teewaay ci bis bi. waaw mais nan ngeen di waajal lañ lay laaj. non ñun pare nañ comme ni naan waajee rek waaj moom waajee rek waaj yëpp benn waaw. tey di jàkkaarloo koo xam te ne xale bu doy waar la muy doomu mbër. Ama Baldé waaw kii day gën a doy waar kii li ko dafa wane ñun. waaw dañu waxante dëgg rek làmb la ñu wax waaw. amal lam moom xam nga ragal fii la day xañ a wërsëg ñun fii leen dëgg fii leen am fii la dee fii la ñuy